bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaqa xamdihi wasalaatu wasalaamu ala afdalil xalqi seydina muhammadin imaamillahi mahdil muntazar wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina limaamu di ñaan yàlla yokki leeram ak njabootam gépp te maam seydi alayhi nekk ci bopp bi di ñaanal bépp néewub islaam yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen xaasatan saxaaba seydina limaam mujj si diggante góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di si jiital sunub sang di sunub xalifa seydi muhammadul muxtaar ibnu ma manjoon di ñaan yàlla mu yàgg fi lool mu ëmbaale njaboot gi yëpp imaam basir nekk ci bopp bi di ziyaar saxaaba si diggante góor ak jigéen ak mboolem julit di ñaan yàlla ñu tawat yàlla na sama borom ba faga seen bopp ñu nekk si tiis yàlla teggil leen ko ñu nekk ci xat-xat yàlla dimbali leen ba ñu dellu si waat si njaboot gi si barkeb Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ñu ñëw fas yéene àndaa yéen si taarix comme ni ñu koy defee mercredi bu nekk ñu toll woon ci keroog bi nga xamee ni Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam woote na ba lenn ci saxaaba ya commencé ñëw di ko uyu comme ni ko sunu maam ju tedd ji lime muy maam Abdullahi Sylla yàlla na yàlla yokki leeram ñu jëloon lenn ci waxi imaam Mouhamadou Sayir yàlla na yàlla fayal ñu ko ak maam Mali Mbay yàlla na yàlla fayal ñu leen ak mbooleem ña doon bind ci kër gi seydinaa limaamu nag alay salaatu salaam sunu maam ju baax ji seex muxtaar loo soppe sunu yaay aminta bintu maam ibrahima seeni waxoon na ni keroog ña ko uysi ban ko uysee ànd ak njabootam gëm ko digaloon na leen si ñuy tudde yàlla guddi ak bëccëg si li nëbbu ak si lu feeñ waaye nag ñu góor góoru ci farata ya ak sunna ya digaloon na loolu nag képp koo xamante ni ñëw nga jokk ci moom kon moom doo ñëw jokk ci moom rek moo ba yàlla bàyyi la ngay def loola neex waaye dalay xamal kan mooy yàlla xamal la say farata xamal la say sunna teg la ci yoonu siraatal mustaqim ndax dafa ni in wafaytum bu ngeen matale wot xilkum ma daal di leen teg tarixati naja si yoonu mucc bi loolu nag Cheikh Muxtaar nee na njabootu boppam la ca jiital teg ca saxaaba ya si diggante góor ak jigéen mag ak ndaw gor ya ak jaam ya ñoom ñépp ñoo ca yem maam libaas ñi ngi feeru ko góor ak jigéen mag ak ndaw xaleeloo jaamu ja ñoo ca maase naaj ak teel nee na nag moom seydinaa limaamu alayhi salaatu salaam masta bàyyi kenn sa këram ak lu wër këram muy jëfe lii nga xamante ni mooy bànneexu ba kenam maanaam nekk di caaxaan ak di def lu ko neex bëgg a wóoru ak a jàpp ci moom loolu masukaa nangu sunu maam ju tedd ji seex Muxtaar daal di continuer wax ji ni wala mas dahara amruhu jamaa allahu ma wa ayati bahirati wal muxjizati zahirati nee na keroog bi seydina limaamu alayhi salaam nag mbirum yàlla ma egce sa moom ba mu oote ba mu feeñ nee na yàlla boole naka ak ay muxjisaat yoo xamante ni yu ñu daan teg seeni bët la xam nga fii dafa utilise baat bu am solo muy baahir maanaam loo xamante ni kenn du ka laam-laame xam nga tey ñun ñëpp jàng nañ ci alxuraan ci yàlla Moussa alayhi salaam xar na géej gi waaye fii la ka xare woon kenn mënu la kaa wax xam na ni daal xar na géej gi waaye fii la woon nii la woon déet géej gi dafa maanaam maasewaat yeneen yonent yëpp la nga xamante ni def nañ ko ci ay xar baax lu ëpp si ñoom seeni xar baax yooyu amul jeexit lu dul ni yàlla moo ñu ko nettali ci alquran yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ko ñu gëm ko waaye nag seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam li lay wan ni mooy seyduna muhammad cheikh muxtaar nee na muxjizaat yi mu defoon ba nii may waxeek ak yow boo ñëwee ñu ni la bàyyi la alayhi salaam fii la rëndalee géej gi boo ñëwee ñun la tànk bi moo ci teg tànkam mu marqué damay faral di wax ni nag ku bëgg ñun ñu bàyyi Seydina Limaamu da ngay dem fi mu randale woon géej gi mu yem fa nga xëccaat géej gi mu maasaale foofu nga dem fa mu tegoon tànkam yow nga jël beneen xeer teg sa tànk ba xam dina marqué bu marqué rek ñu bàyyi ko xam ni yéen ñaare yam waaye loolu ba duna tukki du am mu ni nag wal mujizaat zahirati ak ay mujizaat yoo xamante ni yu biir la daan nañ ko dund yi ñu daan ko gis yi ñu daan ko dégg te benn du bokk ak sa morom yoo xamante ni kenn mënu kaa lim mu ni nag loola bay baynal na wal mukazibin nee na loola nag ñëkk gëmoon ak ñëkk a weddi woon ñëpp daan nañ sa teg seen bët xam nga dafa am koo xamante ni dafay weddi nii rek mu ni kazalika ni ki noonu bokk na sa muhjisaat yooyu tiibul masjidihi wa tiibu subhatihi wa subhati asxaabihi muy la nga xamante ni mooy na kurus ak seydina limaam alayhi salaatu salaam daan génnee gët ak kurusu saxaabaam ya muy ab xet goo xamante ni daf ko toppoon topp ki nga xamante ni mooy ay saxaabaam muy nag mujizaat bu yéeme boo xamante ni yonent bi alayhi salaam démb wax nañ ci xadis boo xamante ni dafay biral ni moom kat am na xet gu mu daan bàyyi goo xamante ni moo gën a neex parfum misk moom la sunu maam ju tedd ji sëriñ Moodu Mbub xaari xunaan kazaara soo miskun wa an baru saabitun nee na bàyyi lay bopp ba misk ak anbar ay parfum àjjana la moo ca sax mu ni lahu sax suraanun mufhumun wa huwa mun jëla mu ni nag loola wa sara zalika ila baadi asxaabihi allazina sabatu ala nee na loola lu ñu xamoon la ci lenn ci ay saxaabaam ya nga xamante ni saxoon nañ si di tudda yàlla wa tahaarati ak laab kon am na yoo xamante ni yàlla may naka waa kër Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mais lan moo tax fii ñu toll man mi di wax ak samay moroom waxuma la xet gu neex googu nekk sa ñoom waaye leer ga ñu daan gis ci njabootuk Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam maanaam ku jokku Seydina Limaam sax nekkatul ci ñoom ndax lan ñaar yi buñ ko bàyyee rek daanika dara dootul baax si ñun xet yooya mag ñi daan xeeñ dootul nekk si ñun muy dañuy sax si tudda yàlla tudda yàlla gi nag bu làmmiñ ca jëf ca xel cala ay cër yépp àndandoo di tudd yàlla waaye nag wat tahaarati ñuy sax si laab mais imagineel koo xamante ni macha allahu dem na ba làkk at yu bëree bëree bëri wàllu laabam sàggane nag ba lu bëri raw ka ca mu ni nag seydina limaamu alayhi salaatu salaam ñaar yooya jàngale woon na ba taalibe yi sax sa loolu nag boo bëggee xam importance bi da ngay dem ca alquran suratul ibrahim yàllaa nga naan alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan yàlla nee na yow yonent bi ndax solowun la naka la ñuy cité comme exemple ñeel leen baat bu teey bu tedd ba mu ni ka sajrati tayyibatin ma nga mel ni garab bu teey bu tedd asluha mu ni garab googa reen ya saabitun lu nu saxal la wa farwa fi samaa'i te ay branche dem na balaal asamaan tuuti ukuliha kulli xiinin nee garab googa ka kay jëfandikoo muy garab gu teey googu muy baat bi di laa ilaha illallah dana la jox la ngay dunde saa su ne bi izni rabbiha si sa digal borom mu ne nag wa yadribu llaahu amsaal linnaasi laallahum yatazakkaruun yàlla nee na lii nag laay cité comme exemple si nit ñi amaana ñu mën a fàttaliku mu ne nag wa masalu kalimati xabisatin nee na ni ni misaalee baat bu bon bu ñaaw bu salte mooy kasajarati xabisatin garab goo xamante ni dafa bon dafa salte mu ne ucci saat garab googu dana sax min faw fawqil ardi sa kaw suuf maanaam lu bon amul dara lu ko téye amul ab cëslaay ku ca wéeru yàgg-yàgg da ngay daanu maalaha min xaraarin yàlla nee na amul dara lu ko téye amul dara loo xamante ni mooy as ndëgër laayam yàlla nag li yusabitu llahu allazina amanu bi xawli saabit yàlla nee na nii la ñuy dëgërale gaa ñi nga xam ni dañoo gëm ca wax ja nga xamante ni dafa sax muy laa ilaha illallah fii xayati dunia ci àdduna boo leen gisee si àdduna doo leen yërëm lu dul ni da leen di ñee boo leen gisee si àdduna da leen di sopp doo leen bañ boo leen gisee si àdduna seeni kanam day belli day naññ day melax ndax dañoo amee diine mu ne nag wa fil axirati boo leen fekkee àllaaxira itam di nga leen naw di leen wekk ndax cër ba leen yàlla jox ñooñ ñooy saabixuuna saabixuun ulaayka al muxarrabuun yàlla nag ni yuddilillahu zalimin yàlla dana sànk ñi nga xamante ne ñooy tooñkat ya ak defkatu bakkaar ya wa yafal ma yashaau ndax yàlla mooy jëf lu ko soob kon nag yàlla si coobareem googu noonu la def seydina limaamu alayhi salaatu salaam muy seyduna muhammad si coobareem googu la def képp ku ko topp jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem tiim nga sa maas àdduna tiim nga sa maas àllaaxira kon lu la waay mën a wax mooy sax si sikar ak sax si laab mooy li nga xamante ni moom la Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam njëkk a jàngal ñi ko toppoon ñi ko gëmoon ak ña nga xamante ni ñoo wéeru woon ca moom yal na yàlla dimbali ñu ba ñu mën a sax si sikar mën a sax ci laab ndax àdduna bi jaxasoo na te ñaari yi nag wax dëgg yàlla ku ko taqoo wallahi foo man a dem yàllaay sa àndaale ndax ponk njàpp ak julli bi ngeen màggaale fu ngeen fi jëm yàlla di seen àndaale yal na yàlla yokk leeri Baay Abdullah lu si jub ñu xam ne yàlla bu dëngee ñu xam ne jàmm bu moo doon wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman alhamdulillah